sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila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 hasbunallahu wa nihmal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli yëpp mbokki taalibi yëpp rawatina mbokk yi nga xam te ni ñu ngi ñuy topp ci émission yóbbulum ndaw ñi ñu jotaayab xam-xam di jotaayal fàttalikonte ci sunu diine kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam ginnaaw loolu nag ñu dellu siwaat ci sunu jataay yi nga xamte nii moom lañu mujje woon a def muy jataayu jàngale téere bii ñu doon wax zaadu zawi taxallumi suñu jataay bi mujj rek suñu bàyyee xel ñu doon jàngale ki nga xam te ni dafa sàkkoo yegg ci yàlla ci yoon wi mu war a jaar te mooy ci sunnaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu taqook ñi nga xam te ni kat ñu yegg ci yàlla la ñu yegg ci yàlla la mën a ba mën ci yàlla ñooñu kat ku taqook ñoom dinañ la wommat yóbbu la ci yàlla kon nag tey dañuy ñëw ci ki nga xam te nii dafa tàmbalee sàkku xam-xam lan moo war a nekk ak ak yéenéem ci sàkku bi mu sàkku xam-xam moo tax sëriñ bi ne fas li ab dog la wala ab bunt la fii maaca la nga xam te ni yan wii dana ko yéene almutaxallimu aji xamlu ji wa yaqsiduhu ak mu koy jublu fibtidaai taxallumihi ci sàkkuk ci tàmbaleek sàkkuk xam-xamam mu ne kon lii dafay xamle yéene ji nga xamte ni moom la nit ki war a yéene ci buy tàmbaleek sàkku xam-xam jubluwaay bi mu ci war a am sàkku xam-xam boobu mu ne taxallamu xamlu leen alxilmu xam-xam li wajhillaahi ngir jëm yàlla duunal manaafasati ci lu dut ëppalante wa tabaahi ak puukarante laa taqsidu bu leen jublu waaye daa mel ni téere bi laa taqsudu la andi waaye bu leen jublu istimaalatal baraaya sàkkub jëngub nit ñi lakum ñee leen wala awsakum du caagee na seenug làq alhadaaya addiyeya kon mi ngi wax ci ki xam te dafa tàmbalee sàkku xam-xam mu ne na am yéene mu sell ci jublu ga muy jublu ci tàmbalee sàkku xam-xam nga mu sàkku xam-xam ngir jëmmi yàlla suñu borom doomu tax nga xam ne day sàkku xam-xam ngir jëmmi yàlla rek ngir ni suñu borom mi nga xam te ni moo digle nit ñi ñu xam njëkk nu koy jaamu te mu bañ a sàkku xam-xam di jublu ëppalante naan diw du xam-xam ak wala maa ëppale xam-xam. nee na loolu na ko wattandiku waaye tamit na wattandiku saako xam-xam ngir puukarante puukarante wala muy sàkku xam-xam ngir nit ñi jublu ko na kat naa sàkku xam-xam ndax su ma amee xam-xam kat nit ñi dinañ ma jublu te nit ñi kat dinañ ma jox seeni àddiya maanaam dinañ ma jox seeni alal mu ne loolu lépp kuy sàkku xam-xam na wattandikoo sàkku xam-xam ngir loolee kon li mu war a def mooy na sàkku xam-xam te yàlla rek tax na sàkk xam-xam ngir gindiku gindi képp koo xam te nii gindiku wut mu ne fa man ma ku sàkku xam-xam li maa ca la nga xam te ni xat zukkira tuddeef na ko fa sax yuhu kon ay jëfam moom ñoomee jaraa daw na fii xaddi mi diini yi ngir màbbu diineem wa baaxa te jaay na axiratahu alaxiraam bi dunya ci àdduna wa daaxa ak muy sàmm ak ak muy sànk sax yuhu jëfam ya wa xaaba ak muy naxasaay sax yan jëf jëfam ya mu nekkat ki nga xam dafa sàkku xam-xam ngir li nga xam te moom laa tudd mooy liñ tuddoon léegi mooy lu mel ni sàkku xam-xam ngir ëppalante wala puukarante wala bëgg nit ñi di jeng di ñëw ci yow wala ñu lay wala nit ñi di leen jox seen alal nee na kooku kat bis bu sàkkee xam-xam ngir loolee na xam ne mu ngi màbbu diineem te ko waaw mu jëf jëf joo xam te ni mu ngi màb yëgu ko te jaay na àllaaxiraam jëndee ko àllaax jëndee ko àdduna jaay na àllaaxiraam jëndee ko àdduna te sànq na ay jëfam te jëfam yooyu kat day sooy maam day naxasaay perte rek la ciy jëm la ciy mu ne is ngir safxatun pas-pasu njaay xadir te jaaxaa goog yaakaaroon na ko xasirat perte na wa bayuhu te njaayam ma tijaaratun ak yaxanal la maanaam ab commerce la maara bi xat goog tono wuut wa na man naka ka nga xamante ni xàllamahu jàngal na ko xad kaana nekk na lahu ñeel ko meexwaanan di ab dimbalikat xalal xisyaanihi ca moyam ga fa huwa te moom musaarikun aji bokkaaleek moom la lahu ñeel ko fi durri ca loru ga ka man ni ka nga xamante ni yabiixu dana jaay a sayfa jaasi ahlal makri ñuñ pexe mu ne ki nga xamante kat dafa jëf jëf yooyu mu la wax mooy sàkku xam-xam ngir jëf yooyu mu la doon tere ne kooku kat nga xam ne kon dafa mel ni dafa jaay àllaaxira jëndee ko àdduna nga xam ne àdduna daal moo tax muy jóg moom dafa jëf ngir àdduna te jëfam yooyee kat bu mu ci yaakaar ne dina ci am ak bénéfice du ci lu da ci da perte jëfam yëpp dañuy perte pas-pas bu mu amoon ci misaal ci njaay te yaakaaroon ne dina gañe ci bénéfice yëpp perte da koy perte njaayam moom daal du ci jëlee dara lu ak perte tànk rek mais te ka nga xam te ni kat jàngaloon na ko moom moom mu nga xam da koo jàngal jàngal gi nag mooy li koy jàngal jublu xamoon na ne bu ko jàngalee ñii lay def maanaam àdduna la koy yëkkati waaye àllaaxira tax ko jóg mu jàngal ko nee na kooku day bokk ak moom ca moy ga ndax mi ngi mel ni ku dimbali nit ci moy nit ki day moy nga dimbali ko yobbalal ko moy gi misaal na mi ngi mel ni ki nga xam te ni dafa yor ngàndaay di ko jaay yor ay jaaseeg wala paaka yu mel noonu di ko jaay nit ki nga xam te ni daf ci lor nit maanaam daf ci rey nit wala mu lor ci nit nga dimbali ko jaay ko paaka ba te xam ne la ci lor nit nee na kooku mokke lor nit ka ca ngànnaay loolee ñoo yem ca lor ka kon ñoo yem ci bàkkaar ñoom ñoo koy bokk moo tax mu misaal ni ki jàngal kookee mi ngi mel ni ku jaay ab saay-saay koo xam ne ni ak day pexe day fexeel nit ñi jaasi wala noonu nga xam noonu lay bokkaale ñoom ci bàkkaar ba nee na ki jàngal koo yi nga xam te da koo jàngal rek ngir moom mu jóg ngir sàkkoo jàngal nit ñi ngir sàkkoo wut alal ci nit ñi nit ñi ngir ak nit ñi nga xam ne loolu lépp àdduna rek la ciy wut nee na kooku mel ni dafa dimbali aji moy ji ci moy ga moy kon ñoo yem ñoom ñaar ci bàkkaar ba moo tax mu misaal ko ne ki yor jaasi ki jaay jaay ko ab saay saay njiw bi ci loot nit ñoo yem ñoom ñaar ngi mel ni kooku ni muy bokkeek moom bàkkaar bay noonu la kii tamit du bokkeek ki mu jàngal xam-xam boobu te loolu tax koo kon daal li muy misaal mooy xam-xam nit ki bu koy sàkku na sàkku xam-xam te yéene ca sàkku cee jub jëf te yàlla tax jëf ju leer waaye nag jubal képp koo xam te ni jubutal wala mu dimbali ba xamal képp koo xam te ni xamutoon te yàlla rek tax nga xam ne daal lépp li ko tax a jóg mooy ci àdduna jëm àllaaxira nga daal moo ko tax a jóg loolu daal mooy dëgg-dëgg xam-xam denc ak yéer topp ak njub te loolu lépp ngir jëm yàlla kon loolu lu am solo lu jar bàyyi xel la ndax ñu bari ñu ngi sàkku xam-xam te dara waralu ko lu puukarante ëppalante ak wanu ngir bëgg ñu naan am xam-xam da ngaa nangam li jàng ñëw ci yow loolu lépp amul benn njëriñ li muy sa jëf rek yàq la lu jar a wattandiku la bépp ndaw bépp jullit buy tàmbalee saako xam-xam war naa xel bu baax ci ak yéen ci tàmbalee saako xam-xam googu lu am solo la kon allah jotaay bi ñu ñëwaat dina wax. ci sàkku xam-xam lan moo war a tax muy sàkku xam-xam maanaam jubluwaay yi war a am dina ci indi ay lim yoo xam te ni dina ko wàññi benn par benn bu nekk mu wax la lan moo war a tax ngay sàkku xam-xam kon dañuy wàcce kàddu yi fii yéen jox ci dégee ci benn jotaay incha allah di ci seen jotaayal yóbbulum ndaw ñi ci Murid TV mu seen bi nga xam te ni ñu góorgóorlu bu baax ci wàllu diine lislaam ngir yéen ñi ñu jàngal ñu ngir njariñ ñu ñaan suñu borom gën a yàggal taxawaay yëpp suñu borom defal ñu am jéggal ak yërmande sàmm sàmm njaboot képp in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala